yàlla dogal nag bi soog bi am ñun fekkee nañ ko ci tàmbali bi gannaaw bi ñu jokko ak sapeur pompier ñu def ci taxawaay bi ñu ci war a def gendarmerie Ndindi tam def ci taxawaay bi mu ci war def procureur it ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaay bi nga xam ne def na ko ndax démb la ajuma waaye bi mu yëgee ni accident bi am na moom Moustapha Mbaye ak ñaar ñi nga xam ne xale yi ci faatu di ñu jokkoog euh, ñi nga xam ne ñoo nekk tribunal toog nañ fa ba vingt une heure vingt une heure ndax di xaar li nga xam ne mooy kayit yi ngir signé ko ngir ñu mën cee jot ci àjjuma ji dem ndax xamoon nañ ni samedi beeg dimanche bi buñ ci àggee duñ ci mën a jot loolu tam ñu ngi ko ci sant bu baax di sant si suus bi. di xam ne tamit seede yi ñu ciy def rek mooy ma xam ci moom yàgg na ndax depuis 2006 ànd nañ ci Safinatou Amaan di liggéey sëriñ bi. muy jàng karaté may ma nekk ci saal bi di jàng karaté bu ngoon jotee ñuy xëy di liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bu sell bi ci gaar beeg yu baree bari yoo xam ne doon nañu ko am waaye li ma xam ñoom daal mooy ku rafet xol la ku mën a jubale ay doomu aadama la ku bañ lu naqari doomu aadama ndax lu mu gis lu nar a ñaaw mu taxaw ci lam ci war a def ca lu rafet loolu xam naa ko ci moom seere tam ni ku bëggoon sëñ Fallu loolu moom xam naa ni ku bëggoon sëñ Fallu la waaw ku bëggoon sëñ Tuubaa la ku bëggoon doomu aadama la moo tax boo gisee dëj bi ni mel ni lu bari ñu war ko cee war a jàngaat mooy nit dees ko yëg yëgoon nañu nag ku yëg doomu aadama yi la ku jëflante ak doomu aadama la waaye nag rafet nañ ci moom jot ndax ku ne xam na ni sëñ Tuubaa moom kenn du ko yaakaar sa yaakaar di tas te yaakaaroon na sëñ Tuubaa yaakaar sëñ Fallu di ñaan yërëm ko jéggal ko xaare ko àjjana te yaxam te képp koo xam ni doxoon nga ñëw fii ngir lu baax a yéene sa tànki ñëw ak sa tànki dellu yàlla na ko yàlla def njéggalu ko àdduna taxaw ak joo xamante ne dootuñu ko présenté ti muy Serigne Moustapha Guèye Sam di kilifa goo xamante ne euh, kenn euh, natt la wut bëggam lu baax tamit ñëpp safoo ko tey jii la ma ñëw ci denc bi xanaa ma yëkkat euh, rek micro bi jox la nga seede kaddu yi nga xamante ne mooy seede jëmee ci ki nga xamante ne mooy Serigne Mbaye salaamaaleykum wa rahmatullah bokki adduna bokki lislaam bokki jullit yi bokki murid yi ngi nuyu ñëpp di leen wax inna lillahi wa inna ilayhi ci xibaar bu tiis mbir mu doy waar muy si Moussa Mbaye Sam nit ku baax ku tedd ku yaatu wàccab liggéey nga xam ne sama xarit la woon àllarba la mujj fi man mook soxnaam ñu toog waxtaan soxnaam am lu mu ko wax mel ni loola dañ da doon tàggatoo mu jóge fi ne ma ajuma ca ngoon danañ gise kon dafa mel ni lii moom la suñu borom na man eh, muy lu nu bett waaye nag dañ koy muñe yàlla ndax ci mbetteel rek lay ñëwee noonu la ko suñu boroom waxee mbetteel googu nag tey daal dal si tey ci foo xam ne du doon lu métti ndax yàlla lu def dañ koy waaye lu lu diis ci jullit yi ak murid yi ak taalibe yëpp la euh, di ko jaale ñëpp nag ndax nit ma ko war a jaale ni ñu ko war a jaale ñëpp man jàpp naa ne Moussa sama Moussa kuy xool internet bi di xool ay ay vidéo ak yu bari da ngay dégg mu di ma tudd di wax lu baree bari Euh, euh, yàlla la ñuy seer bi ñu ko yëgee daara jii ci Touba ci Sàmm daara ja ca ngàcc daara yëpp dama leen woon ne leen alxuraan ndax loolu laa ko deseel mooy ñaanal ko ñaari rakka yooyu nga xam ne suñ Touba dafa wax ne kun ko julli ñu jéggal ko ko maa ngi seere ci yàlla ak ab yonentam julli nañ ko ko ngir loolu ko deseel di leen sant yéen waa presse yi ndax ànd naa ak yéen àndin wu rafet jëflanteeg yéen jëflante bu rafet kon jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullah tawfeex lan mooy kàddu yi nga xamante ne waaw kàddu seede yi mooy di ko ñaanal ci yàlla ak Serigne Touba fee mu jëm Serigne Touba teeru ko ci suuf si woyof ci kawam ndax mbay ku gis dencam bi rek denc bi rek seede na boppam ku gis mbooloo mi nga xam ne ñi amuloon oto sax doon daw ngir egsi loolu nag day wane ni suñu boroom xol lay fay ku jaxasoog mbay rek xam nga ko ci xol bu rafet xam nga ko ci laabir ba ñu bari sax wax nañ ni sogom bi li waral dëgg-dëgg metti gi ak laa biir la ndax bañoon dal ci ay kaw nit kon li ñuy seede ci moom daal mooy denc bi moom sedd na ba ñu ngi koy ñaanal nag ci yàlla ak Serigne Touba fee mu jëm gënal ko fii mu jóge te loolu am nañ ci yaakaar ndax lam doon doxi ndax ñi ëpp ci mbooloo mi wax nañ ni da doon julli ji àjjuma loolu dog ko ci yoon bi te ku ne xam ne ni nit na mu faatoo ci loolu lañ koy atte ci loolu lay dekki kon ñu ngi ñaan yàlla daal suñu boroom yërëm ko te yeexeñu ci barke Serigne Saliou boo xamante ne doomu aadama yëpp war nañ cee jànge ak mbaax jàng ci gëm sa bopp mbay xam boppam léeg-léeg sax dégg ku naan gëm sa bopp mais nit du gëm boppam day xam boppam mais mbay ku teel a xam boppam la ku teel a préparé la ku teel sotti na waaw yàlla nag bu ko cat jiitu fa mu jëm kilifa goo waxal mun la man su ma ko mës seetaanee reetaan na mais nag li ma ci jànge mooy ni ñu waxee ne ñaari xale faatu nañ ci dama ne mbay du faat euh, ñaari xale ci ci ci demee ci oto bi ba noppi di dundaat loolu na ci jaam ñi bàyyi xel maanaam mbay ñu ñu ñu ñu ne ko pëkk pëkk mu jóg ñu ne ko oto bi nga yoroon faat na ay doomu aadama ci ku mënta kaata doomu aadama kooku mënu fee nekkaat di bigal nit kon lii rek moo ci mën a topp ma nga jëm foo xam ne nag ku dul Serigne Touba mënoo fa mënaloonu fa dara ku dul sëriñ tubaa yaakaaru ko yàlla na ko fa jiitu tey nag lay xam kan mooy Serigne sëriñ bi kenn du ko xam ci ay ay benn fee lu dul parce que fii dafa bari dafa bari dafa bari jalaw jalaw da ngay tudd sëriñ bi sax am ku ne Maam Mor Faye am ku ne mbërum làmb am ku ne nangam waaye fee mu jëm sëriñ bee toog mu yaay ne ma sàmba mu ne ko Mbàkke mu ne ko ñetti yi maa ci man fop maa man ci géej gi fop mu ne ko si kuul mu ne ko ak jéeri ji toog ba yàgg ne ko ak yow man xayaam gën jëm te booba te ba booba te nun bu nu taxawee ne sëriñ bi mënal nañu foofa dara mooy dañ koy gëm ndax ku ko topp dem àjjana la ñu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 gën noo gàtt ndoog tawféexi sëriñ bi